ko dañ ko sosal dañ ko yee pour ko ci oto yeew ay tànkam yóbbu ko nit ay aji bés ko ay waay xam ngeen ko loolu da ngay fen loolu kàcc na tey Pape Alé Niang ngi ne dugg fii liir naa léegi Sonko xam nga lu wax mu ne Pape génnewul dara li génne bu ko gisee ci internet bi poste bi de mën a réguler léegi le poste de Sonko liggéey nga nee na Pape Alé ci internet bi la gisee yooyu ñu def moo ko divulgué Pape Alé boo ko génne Pape Alé bu ko amalee rek waaye jàmbaar gi yi jàmbaar rek soo koy tàppal lañ seen jàmbaar gi yëpp buñ téemee seen clavier yi ay yore seen micro yi eh, ak yomb soo ko gën a tàppal Sénégal moo tax ñu ànd ak moom tàppal la ñu la nekk mais nag dañu di saaga nit ñi man lu ne lañ may saaga lu ne man mii nee na ma prostitué nga Pape Alé lu ne ma ne ma tu es un prostitué tu es un nangam nangam nangam nangam sam xam kii ba Paris sa jigéen ba nangam xam ngeen yàlla man keroog may déposé plainte Mamour Diallo ci quatre-vingt-quatorze milliards de mensonges quatre-vingt-quatorze milliards de mensonges de Sonko Guy Marius Sagna ànd ak waa kër Sonko yi naan ma avocat oui léegi ay eh, waay ba bàyyi leen yàlla tegu ci quelques mois rek kaw Sonko ma li ma sosoon ak ma feneen tey de bu ñu nee violé Sénégal yëpp kenn la ñëpp di xalaat bu ñu nee ponkal violé ci monde bi yëpp sax lu sax xalaat URSS wala Australie am na ponkal bu ñuy xalaat fa laa yem am na ku ma taxaw aussi benn émission. faram-fàccee ku ñuy wax kilifa naan ma yow violeur nga man jomb naa sama doom falilu def loo xam ne dafay xeeb teguñ ca 15 sama ay image génn ci leeral muy négocier di encaisser millions yi di diggante ay passeport diplomatique ak ay visa moom mi di jomb naa def luñ koy xeebee moo tax ku fi tooñ man du ma de. mais cey koy tooñ borom xol bu rafet kii wax dëgg te bëgg réewam ba ñuy taal këram foo ne ba ñu ko taalee këram mu bàyyi Sonko mu nag tey laay gën a doxantu ci kaw Sonko ndax réew wu fi ah fii ñu mën a taxaw ne sama maam buur la bëriwul ñu mën a taxaw fëkk sama dëgg la kaw la quoi sama maam mooy dernier buur Saloum le père de mon père na kenn contesté loolu mon père est le fils roi et je suis le fils aîné de mon père je être un poltron dans avec un star royal comment peut-on moi El Hadj Diouf ñëw xamuñu brûler ma maison ne me fera pas reculer de Sonko n'avaient rien compris même s'ils m'avaient tué je vais continuer le combat. Et j'ai les enfants que j'ai éduqués qui vont continuer le combat pour la dignité et pour l'amour, l'amour de son peuple. Il faut aimer son peuple, aimer son peuple. nit ki dafa war a bëgg réewam bëgg askanam moo tax ñu ñëw naan dañuy tax El Hadj Diouf di ko jaay doole di ko xoxatal ma ne dañuy perte seen temps am nañu doon tapet ragal mais ma doonoo ko mënoo nekk sa dernier pour Saloum di nekk ragal sa baay di taawu pour sa taawu baay pour Saloum Fodé moom mujjee nekk pour Saloum Sénégal kon ku toog dama xooxatal xam nga foo jógee xam nga ci ban makki nga jógee xam nga ci ban baas nga jógee xam nga ci ban ruux nga man ngay dàpp. man sama maam ji yëkkatu yëkkatu sama baay yëkkatu fa tëdd ku doon toppee nag ku doon ragal sa affaire la ku doon toppaatee ñu jëlee noot sa affaire la mais ku doon bañ doonu ñeme taal sa kër la dina saaga dina saaga dina diaboliser dina diaboliser dina tax a dellu ginnaaw de ndax li may barke alxuraan billaahi wallaahi dara yi Sénégal dama sama njaboot dañoo war a défendre Sénégal defuma ko pour kenn même pas pour man mais pour ëllëg suñu ëllëg yu njaboot xam ne suñu bàyyi bañkat la woon Sénégal rek la ñu am ñu mënuñu dem Mali mënuñoo daw dem Mauritanie mënuñoo Angola Sénégal la ñu am bay Sénégal yi nañu àndandoo Sénégal loolu laa bëggoon a wax di leen di leen sant question nag. laajte ko ndax man ma dox boobu nga xam ni yabaate ba nga xam ni bu paree ne kenn du ko laaj xam na li mu def Olof Njaay ku mos jàkkaarloo xam ne jëw neex day day jëw rek waaye jàkkaarloo yéen ngeen di laaj muy tontu bu ko defee déedéet. bi voilà testataire bi bi mu ñëwee toog juge bi ni ko. Ousmane fu ñuy wax Adji Sarr neen ci moom ma bëggoon a xam yow loo ci xalaat mu ne attakat bi yow mayu nga dima laaj di ma laaj loo xam ni rafetul ci man day yàq sama der boo ah yàq bi neen da nga ci moom loo ci xam nga ne am ñuy wër télé yi naan day am noonu lii yéen ñu laaj la wax a leeral nga ne doo ma amee deuxième question juge bi ne ko waaye yow nee na da nga yegg ci moom googu yegg yegg bu mujj ba nga yegg ci ay ay ay